RTV Dakar yéen leen gaaw bu fàtte bés close notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen jëf. jël giir tudde ko kundu kundu rab la moom la arab yi di wax saalam wax nañ ni ku fiir la. te wolof yi di wax yaa fiir na kundu ku fiiree waa këram la soxnaam ak i doomam daf leen di fiire kenn du leen laal moo ñuy fekk nit ku baax ku aar njabootam ñu tudde ko saalab wante am na beneen côté caay-caay boobu taxul ñu di ko tudde kenn léeg-léeg tuddee giir yar boo moom laa xamul nu ko wolof yi tudde yar boo yéen ñi dégg wolof na mu tudd jaar la tudd waaw buy tëbe ci garab dal ca garab ba ca des moom na mu tudd mooy xojo waa li tubaab tuddee gerboise mooy lan moom moo ci ban mu mel ni itam wàllu ekiliibu moo tax ñu di ko tudde nit walla ñu di ko tudde giir ndax di tëbe ci garab dal ca ba ca des te doo daanu fa la yitte yem boroom kër bu yàlla jox yitte bu toll noonu jox na la équilibre te dund bu ca équilibre amul jaratu ko ndax dañu jaarale ci lu ñuy tudde yoon bu nekk ci digg bi bañ a jaar fii bañ a jaar fële ummatan wasatan wante wàllu rab yi lu am solo la moo tax yàlla wax ci alquran ni ay nation lañu comme yéen te loolu mel na ni dafa bëgg ku ci bàyyi xel dafa xaw mel na bésu bésu xat-xat la xam nga soo demee ci alquran yàlla tudd na fa xaj bu yiw ndax boroomam muy xaj bi àndoon ak asxaabul kaaf yàlla tudd na ci alquran itam xaj bu kàccoor in taxmil alayhi yalhat aw tatrukhu yalhat moo tax ku nekk kala yar nga niru su ko defee wund itam ñëw xam naa alaaji mbóoj bu ñu ma romb kër gis ñu bind ca buntu ba chien méchant mu ni ma du xaj bi boroom kër gi la ni ko affaire la de mu mel ni kon maamam bi ñuy wax kilaab xëy na yi daje ci moom mooy ku bëggoon rëbb la te ku daan ànd ak ay xaj yu bare la sudee rëbb te loolu itam dafa mel ni màndarga njàmbar la ndax rëbbkat bu dëgërul fit amul rëbbkat yépp dañu dëgër fit la seen xaj yi itam dañu dëgër fit waaye espèce su dàkkental rek la nag terewul am na ci yonent yi kenn ku daan wax doomam ni ko del seetlu jikko rab yi ndax dana la yokk xam-xam te dana la yokk jikko boo leen dee boo leen dee seetlu looloo ngi ci seen biir wér ki démb rekk laa ciy waxtaan ak seen patron mu ni ma man daal dafa am lu ma jaaxal ma ni ko lan la mu ni ma rab yaa ngi gën a nite nit ñiy gën rabe ma ni ko dafa dikk ci ba tax na ëpp dañoo xeeb am na ñu wax sax ni suñu mbokk asiatique yi am na xeex buleen leen yàlla mën nga xam ni bu ñu ko dee xeex wala ñoo bàyyi ka ñoo xeexal rekk dañu ko sonal wax nañ ni ñu ko jële ci benn rab bu tuuti xawma wolof yi gëleemu mbëtt lañ ko tuddeti walla gëleemu maam yàlla walla am na nuñ ko tudde arab yi it am nañu nuñ koy dàkkantale bu dee bi nga xam ni boo ko gisee fokk ca bëccëg bëgg nga dégg lu la naqadi te mooy bi amee couleur bi mel ni matt ñu di ko tudde xasaanu iblis ñaare dañu ni boo ko gisee moom foog nga dégg safaan walla bu wert bu rafet bi ñu ni boo xëyee gis ko dégg lu la neex ca bëccëg ba moom lañuy ñuy wax farasul rasul waaye turam dëgg-dëgg ci arab mooy suruufa defe naa tubaab yi ñoom mante religieuse lañ koy wax mu mel ni rab yi ëpp nañoo xepp ndax comme nit mëtatul nit foog mu wara a fonk rab am na léeb bu nga xam ni dañ ni gànnaar la jóge wante mel na ni ci jamono yont yàlla yusuf la woon nee ñu mbokk ma dafa jóge gànnaar ñëw ñu ni ko ndax wund am na fa mu ni waaw waaye boppam la fa nekkal mu mel ni dafa junju égoïsme bi ci wund waaw ku bëgg boppam la ki boppam rekk ko yitteel waaye ñaawalu ko nag moo tax lenn philosophe wax ni d'accord nañ ci égoïsme moom ndax égoïsme bu confortable la maanaam dafa yiw égoïsme bu yiwa di moo moo bon ba moo tax yonent bi wax na ni am na benn jigéen àtte nañ ko moom ba noppi ba teg dossier moom bu ñuy ubbi jahannama mu di ca dugg ndax dafa sàggane woon wundam wax nañ ni itam dajeeg wund wu feebar moo gën a yomb dajeeg wund wu màggat ndax dundinam moo tax dafa xam na moo dunde RTV Dakar yéen ñi aboneegul gul leen gaaw bu leen fàtte bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen jëf.